arbitre ba sifflé na jox nañ avertissement général Malika. mbokk yi arbitre jox avertissement ki nga xamante ne mooy général Malika. arbitre ba sifflé na. ñoo ci demi final bi. poids lourd François Gomis dem na final. ki nga xamante ni mooy. mooy Ada Boy Baol. général Malika Talfa. ñu ko ca digg géew ba. Général Malika Talfa Général Malika à droite Talfa à gauche. arbitre. waat nañ Talfa Malika. eh Talfa jël na tànk Malika. eh Talfa Général Malika. Talfa Général Malika. Talfa Général Malika. arbitre. Talfa Général Malika. arbitre. plaqué na daan na ko daan na ko daan na ko